asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi ak euh, Serigne Cheikh Abdoul Latif Mbacké euh, di xalifa sëriñ Abdoul Latif moom Serigne Mame Mor Diarra waaye suñu gisee teewaayam fii kenn ku nekk xam na ne jëwriñu Cheikh Mouhamadul Mountakha la di ab taalibeem doon koo xam ne it mi ngi ci wetam saa su nekk di ko jàppale ci liggéey bi. waaye su teewee fii ci gàmm gi ñuy fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne daayira muxaddamatul xidma ci ndigalul sëriñ bi moo koy def ànd ko ak daayira rawdu rayaxiin kenn ku nekk xam euh, moom it ni mu doxe suñu diggante ak sëriñ bi ci wàllu liggéey yi ñu def yépp ci ci gu nekk te loola it lu yàgg la lu lu sax yàlla na ko yàlla gën a jëme kanam te gën koo may kattan te ñu ànd ko lu yàgg yàgg yàgg ci ginnaaw sëriñ bi kon nag euh, teew na fi su fi teewee nag mën nañu wax ne jëmmi Cheikh Amadou Mountakha yi teew na ndax ndawam la ci lépp ci fànn gu nekk kon moom la ñuy jox kàddu gi mu yëkkati ay kàddu kàddu yoo xam ne dana ko seere ci guddi gi ak ni mu gisee taxawaay bi fii ak it euh, kaddu yi fàttaliku kon ñu sëriñ Cheikh bisimilah. bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilah rabbil alamin salaamaaleykum wa wa barakaatu. sëñ Abdoulahat li nga wax dégg nañ ci lool sant la ci sant ci lool itam ndax kàddu yu wér la yu dëggu la suñ boroom moo nu taw feexale mu war a ànd liggéeyu sëriñ bi ñu yàlla boole bokk ba noppi taw feexale nu nu ànd liggéeyu sëriñ bi liggéeyu sëriñ tubaab bi ci wet yëpp ñu liggéey liggéeyu sëriñ tubaab bi nag mooy lépp lu ñu def sunu yëngoog sunu dal lépp sëriñ Tuubaa ko moom sëriñ Tuubaa lañ koy yëngul bu ma ne bu may wax itam noonu laay wax ndax niñ ko waxee daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne dañu ànd ak daayira Rawdu bi leen taxawaloo gàmmu gi danoo bokk lépp danu yàlla boole bokk ba noppi danoo boole daara boole daara mooy lan danoo boole bëgg boole nu doxin ànd nu ànd ngir ànd liggéey sëriñ Tuuba ah daayira bi nag ñu am tawfeex yi ñu jagleel leen ñu liggéey ci jumaa ji ak li ko wër mu jógee ci ndigalu Cheikh Saliou war muy cër bu rëy bu rafet bu mat sant yàlla nekk noona daayira Rawdu Rayaahiin bi jëm ci wàllu xam-xam ak diine bare na ci loo xam ne dañ leen koy taxawuloo xawaat seen jëw ni yee di sëñ Ahmad Badawi ak ñu ne demee ba loolu amee nag gàmm gi ci bis yi nga xam ne wala mooy mën nañoo wax ci gàttal ne mooy bis bi sëriñ Touba gënoon a fonk ndax li tax Serigne Touba yonent bi la def muy léppam ni ko sëñ Muntaxa di jàngalee rek mës a génn diggante boromam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla liggéeyal yonent bi ci la Serigne Touba ku ne xam ak bëggam yonent bi ku xam ak jeexam ci yonent bi ku ne xam ne dara yitteelu ko lu dul jaamu yàlla liggéey yonent bi sallallahu kon lépp yonent bi sallallahu dafa ñoroon Serigne Touba noonu ko ñi ko xam di waxee Serigne Bassirou bind ko muy weeru koor ak bisub gàmmu ñor gum ko ñoroon Serigne ci ay yëngum ci léppam bu ñëwee ñu gis ne benn waxtu mës sa nen mës sa taxaw ci menn mbir waaye yooyu bu ñu egsee yëngu yam doon def ak jaamu yàlla yaag bernde yaag yëngu yëpp day mel ne bu ñooyu ñëwee lu ca mën a yokk dana ko jéem a yokk muy weeru koor ak bisu gàmmu bisu gàmmu nag li ci sëñ Tuubaa wax lépp boo demee ci xëstu ak gëstu bu ak yu demee noona lam cee wax ci màgg guddi gi ak ci lu rafet borom xam-xam yi danañ ko wax dañ cee wax dana doy sëkk waaye lañ lam cay wax kenn mënu koo jeexal moom sëñ Tuubaa bi waxaatee ne ah yeeytul mawlidi nabi bin asasi ba ko tàmbalee yàgg na lool te booba jëf yi wéet na sori na métti na bu ñëwee nag ba egsi fii nag fii jamono toll ak moom lépp nag di gën a fes ne àdduna si nu nekk ku ko gisee ak ku gisewul noonu ci am sunu borom dénk na ko Serigne Touba te Serigne Touba moo ko jaamu yàlla ba yàlla doy ko ci ba ba mu doy ci sunu borom sunu borom dénk ko yonent sa sallallahu alayhi wa sallam def ko jëwriñam kenn nattaletu kon jamono ji lépp luñ Serigne Touba doon defal yonent bi ñi fi ñi ko fi nekkal dañoo war di gën a dundal loola di ko gën a yàkkali di ko gën a rafetal ba àdduna sépp di gën a xam diggante Serigne Touba ak sa bi bu loolu amee dundalu guddi gi nag di ñor ñi ko fi nekkal ñëpp ku ko fi mës a nekkal dundal guddi gi ñor na lool. benn si Saliou soppite soppite yu bëree bëree bari ba dénk daayira Muxaddam Xidma jumaa ji ak li ci aju déggal leen ñu di fi juma ñu di fi gàmmoo Serigne Saliou doon soññee gàmmo gi waxtu wi soññee Magalu Touba ci lay soññee wàlle gàmmo ngir ñu di ko gën a fonk di ko gën a dundal. dëkk bi itam daayira yu mag yëpp daayira bu nekk maam am mu la jox ne la defa gàmmoo bu gàmmoo ko ñëwee mu di la ci jàppale noonu nag ci la Seex Muntaxa mi fi nekk jiite jooje la ci am la am ci guddi gi am ko ci dëkk bi am ko ci liggéey bi sëriñ bi lépp lu ci ñu baax ñu doon def ñi ko jiitu sëriñ Tuubaa ma nga jéem di ko yokk teraanga yi ñu daan yónnee ci kër yi diine yëpp yónnee na ko teraanga yi ñu yónnee ci kër yi mag ci dëkk bi yëpp yónnee na teraanga yi ñu yónnee ci barab yi nga xam ne ay daayir yu mag ñoo fiy gàmmo yëpp yónnee yónnee dafa teraanga ya door a ñëw nag ci kër sëñ Touba gii ànd koog ñii mu denk liggéey jumaa ji muy Moukhaddamatoul Khidma Hizbut Tarqiyyah sëriñ am satu ñëpp ngir ñu ànd dundal guddi ji kon nag bu loolu amee Hizbut Tarqiyyah daayira Moukhaddamatoul Khidma bii ànd ak Rawdu Rayaahiin bii ñu di ko dundale fii ci wetu sëriñ Touba te di ko dundal na ko Serigne Touba daan dundale ci dundin rafet bu pasteef bu yaatu moo xam ne ñu ko seq ñëpp loolu mooy seen yitte bu jubee ba bëccëg ñu ngi ci nas bi ak waaj bi bu jant bi soo ñu tàmbali gàmmu gi fi mu ne borom xam-xam yi ñi ngi waxtaan ci gàmmu ak mbirum yonent bi sallallahu alayhi bu ñu weesoo ñu àgg ci njàng bi nañuy defee kuréel yi ak sëñ Ahmadou Badou ñoom nañuy defee barsan jiw bi loolu lépp ngir dundal guddi gi dëppale ko na ko Serigne Touba bëgg kon bu ñëwee fii nag te lépp loo xam ne ma xar ma xet ma ñi ngi koy def maa ngi noo koy ànd sëñ Abdoulaye junuñ juñu na ko léegi may seen ndaw ci sëriñ bi doon ndawul sëriñ bi ci ñoom sëriñ bi lépp lu muy def jëm ci ñoom yónni ma ko ci ñoom ñoom itam lépp lu ñuy wax sëriñ bi doy ma doy leen jot leen ko sëriñ bi kon buñ ko dee liggéey ba liggéey bi toll fii war na maa mën a ñëw seere taxawaay bu rafet bi ak doxin doxeenu rafet wi ak doxin wu matale wi te noonu lañ koy seeral Serigne Cheikh Mountakha incha allah barkeelu si rek moo ñu fi indi woon ndax liggéey bi ñu liggéey ci biir kër gi àggute ña ngi ma fay soññ waaye dinaa ñëw fii nag jot li samay kàddu ba ñu xam ne jëm nañ teewal fi Serigne Mountakha doon fi ay bëtam doon fi aw làmmiñam ci ak cant ci lan fa ma ca mën a yem doonte mënu àgg fa mu war a di xam le ne yéen a yéen a mooy lu mu daan def lu nekk bu ko mënta du ko wàññi lu mu ci nag dana ko def waaye bu demee ba mënti teew fii jataay bi kon nu teewal ko fi wax ko nam demee te xam ne xolam a ngi fi basiiraam mi ngi fi ni mu koy waxee rek gisub xol moo gën a sori te mooy basiira wóor nañu ne mi ngi xam li fii xew mi ngi gis li fii xew mi koy bégee kon mbégam tam mbégteem moom rek laay jot liwaat ma itam ñi mu fiy liggéeyloo mooy daayira mu xam xet ma ak daayira Rawdu Rayaahiin sëriñ mu Mountakha sant na leen gërëm na leen léegi lañ fi andi seen i xéewal reer la ci war lépp sëriñ Mountakha teg ci bëtam bég ca lool sant ma ne naa ko séddale nañ ko war a joxe ñu barkeelu ca kon bu ma ñëwaatee dama doon barkeelu su may tam ci barab bi ci liggéey bi di leeral waat ñi ko yor ne leen seen ndaw laa ci sëriñ bi naa leeral sëñ bi doxin bi lépp sëñ bi béggoon na ci da ciy gën a bég xolam seddoon na ci xolam ci gën a sedd kon dañu ñaan dolli ci rek yàlla nañ ko yàgg taxaw yàlla nañ ko dajee ngërëmul Serigne Touba yàlla nañ dajee na ko Serigne Touba bëggee ñu defee ko nii te ñu ko daan dund dundalee itam dara bañ cee gàllankoor ñu defee ko nañ ko daan defee dundale ko nañ ko daan dundalee ànd ko raw du rayaxin sëñ Ahmadou Bada ñëw ànd ko ak ñoom waaw ma xat ma ñëpp sëñ Afi ma ko jiite ak ñi ànd liggéey bi ñëpp ñu ngi ni toog ñu ànd ko dañ ko daan defee dundal ko bërset ne ko Serigne Touba bëggee woon daa ko ne defee ñu defalee ko ni ci barabam bi ci jumaam ji ci dëkkam bii yàlla na yàlla nangu lépp ci barke Serigne Touba yàlla na Serigne Touba gërëm rafetlu nangu leen yàlla nañu ko yàgg a def jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ay delloo kàddu cant bu baax di la delloo kàddu yi ngërëm bu baax di wax ne lii sëñ Abdou Lahad waxoon ci tàmbali bi rek lañu ñu woon ci eh, waxtaan wi lépp dégg nañ ko ci ni ko sëriñ bi waxee rek mooy ni mu demee sëriñ Cheikh la ñu sun borom boolee dafa bari lool muy suñu kilifa ci wet yëpp sëriñ bi wëlbatiku boolewaat ak moom ci liggéey bi waaye moom it nag mu am ci cawarteg boppam lool am ci yéene boppam lool am ci yitte boppam lool waaye nag amuk cofeel itam ci nun ñi koy taxawee lool cofeel goo xam ne sax ñun dañuy toog ba mu yàgg sax mu dañu jaaxal ndax yéene jëm am ci ñun ak yitte jëm am ci ñun ak ni ansi euh, joree waaye nim ñu boolee ci boppam ba ñu def ñu boppam ba ñu mel ni moroomam loolu itam lu mat a bàyyi xel la te loolu lépp nag xam nañ li ko waral li ko waral mooy cofeelam ci Serigne Touba moo yëmut fen ba képp kum gis ngay jéem a yëngatu ci liggéeyub Serigne bi rek dalay sopp ci xolam cofeel goo xam ne dara du ca des kon Serigne bi ñu ngi lay ñaanal ci barkeb Cheikhul Khadim ci guddi gu tedd gii suñ borom yàggal la fi lool te may la wér te yàggal fi nag sunu kilifa gi nga xam ne moo nekk ci kanamu murit yëpp te yaakaar yaakaari murit yëpp te murit yëpp sopp ko waaye jullit yëpp sopp ko ak nekk tamit di njariñul jullit ñëpp di njariñul àdduna bépp waaye nag gën a doon njariñul réew mi gën a doon njariñul dëkk bi ak murit gii sun borom ruus ñu ci ci barkeb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ñuy fàttaliku tey jii ak barkeb xaadimu rasul mi ñu koy fàttalikoo ci ëpp ëttam bàyyil nu ko fi lu yàgg yàgg yàgg yàgg bu yàgg noo jiite ñu yàgg ànd moom liggéey bi ngir gëm nañu bu wér ne bu ñu tënkoo ci ginnaawam topp ci ginnaawam danañu soññ dana ñuy soññ waxtu wu nekk ci ak taalibe dañuy itam moom taxawul mi ngi dem waxoon na ne ku dem ma dem ku demul ma dem waaye la ko signifié waxoon fii rek ñun kat amuñuy tànk mënuñoo dem waaye nag mbakki rek bu ñu fa bàyyi nu mën a xew rek yóbbaale ñu kon nag ginnaaw moom ku dem mu dem ku demul mu dem te ñun it fasuñu yéene mu ba mu mu mu bàyyi fi dañoo fas yéene mu di ñu yóbbaale kon dañuy ñaan rek mu yàgg fi lool yàgg nu yóbbaale yóbbaale it ñeneen ñu baree bare bare bare ñoo xam ne ñu war a ñëwaat lañ ci barke Cheikhul Khadim kon soo sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax liñ la waxoon léegi rek biñ la wooyee di indi xéwal yi nga ne ah sëñ bi ñëw ko tege da ngeen xaar ba sëñ bi ñëwam déet ñu ne la ñun loolu duñu ci fekk ndax sëñ bi yow la ñu joxoñoon kon bu buñ la fekkee rek fekk nañ fi sëñ bi waaye gis nga tawfeex ja ca def ja ca borom def dañoo egsi sëriñ bi egsi wàcc loolu mooy wane rek ne yéene jiñ ci amoon mooy la àgg rek waaye ñun ràññeet la wuñ sab sab sab jataay ak jataayu sëriñ bi benn rek lañ ko def jërëjëf Mbacke ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant mboolem jullit ñi ngi teew ci bis bi yëpp di leen gërëm kon xam naa dañuy tënk foofu kàddu yi ba ci kanam rek bañ amaat geneen gan goo xam ne moom la ñu a waxal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa